téléspectateur Kifne TV ñu ngi nuyeek ku ne ci turam ak jëmmam ah, waaye di leen ziar di leen wax rek ah, defoon nañ ko daaw fekke déwén dañuy baaxantal comme ni ñu ko defee woon daaw rek lañu dellu sewaat xar yi ak tabaski bi ah, ñëw nag dugg ci ñi nga xam ne ñoo yor xari ci biir koñ yi di yar am nañ ci wàll ndax du daral ba rek lañ war a jaar dañuy njëkkee ci ñoom rek ñu indi ñu lan la ñuy eh, am ci fi nga xam ne eh, moo di fi ñuy jaayee xar ak lan lañ ciy liggéey ak eh, li nga xam ne mooy yar bi nan la ñuy yëngoo ci moom xam naa sama caméraman danga may topp rek ma dugg ci biir gétt gi ñu daal di doxal. gétt gi ah fekk ay xale yi ñu ñëw toog maanaam ay xale yu góor. Euh, dañuy leen di laaj rek euh, ki nga xam ne moom laa dendeel foog mu wax euh, ndax fi lañ la fekk Thier ah Thier ñu ngi lay nuyu. waaye ma ngi leen ziar bu baax baax. mbaa yaa ngi am jàmm. ah tawfeex ñu fekk la ci biir gerte gi da nga ciy yëngu wala da ci am xar wala da nga ñëw pour fréquentation. waaw da yëngu en plus tamit da nga ci am xar mm-hmm. ah, moo tax ñu nekk fii ci gerte gi. yow ci lii ngay yëngu wala am nga leneen looy yëngu. waaye si lii laa yëngu ax leneen. Mm-hmm. Ah, ah. nga don ndaw tay ji ngeen nek ci jaayu xar bi naka nga gisee ren ak réew mi nu mu ak xar yi ngeen di jaay. waaw lu si gëna metti mom manam moy dundu bi quoi dundu xar mi motax xar cher période bi ni manam yi ñi jaay éleveur yi ñu wara lek dafa cher. waaw dafa cher trop. dafa cher trop instant bi xar bi fi gëna cher ñaata lay jaay xar bi fi gëna cher boy xol mu ngi tollu si 500000 francs. macha allah mais gis ngeen ne gaay yaangi ñew waaw gars yaa ngi ñëw mais des na nag. des na par rapport daaw ñu doon ñëwee. waaw loolu am na solo Thierno ah, nee na day yar xar ci ci lay yëngu mais mu yëngu ci leen mu bëri ci ay ndaw ah, ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu xar waaye ma fekkaat fii ñeneen ñoo xam ne rek euh, sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay maa ngi lay fay. maa yaa ngi am jàmm. maa yaa am jàmm bu baax. fii ngay yëngu wala da ñëw pour euh, yaa ma gën a xam. fii laay yëngu kay. fii ngay yëngu. waaw da fi am xar. waaw am naa fi xar kay. fii par rapport ak client yi ah, des na de daaw moom moo gënoon moo gënoon moo gënoon moo gënoon tane moom par rapport ak ren ji ñu gisoon ne daaw corona bi doon nañu wax metti woon na kon ren bu ñu waxee ne daaw moo gënoon kii lu waraloon ak ah, corona bi metti woon na mais xari duggoon na de hmm. par rapport ak ren eh, ñu gis eh, ne ci biir coggal dañuy gis ay xale yu fay ne ñii di jaay guum eh, ñii di def buret est-ce am na fi ci ci daral yi si daral bii moom amu fi moom wax dëgg yàlla. yéen boo leen jaayee yéen a yóbbu laate xar. waaw fii pratiquement buñ jaayee ñoo lay. waaw. doon lu am solo ah euh, kon ñi nga xam ne ñooy yar xar defe naa li ñuy def am na solo ndax jaay la xar dencal la ko bañ ne suba la euh, euh, dalay ah, dalay aaral sa xar ndax ñu ci bëri dañuy dem jënd ci coogali bu ñu ñëwee maanaam balaa tabaski sax ñu ne jël nañ ko kon li ñuy def am na solo ba tey ba tax ki nga xam ne moo di Baye mbay nee tamit néew di doole yi mën nañ fi dugg ndax ku ne ak sa prix ñoom ñu ngi maanaam ay bàyyi defal yàlla lañ. daa man ne yaay kilifa yi dañoo juum mais ci Pape lañ waroon njëkkee. non lépp benn la la. allah Pape noo gisee fii. waaw fii sant yàlla rek. Uh-huh. sant yàlla alhamdulilah. parce que gars fi nekk moom ñëpp ay borom baax lañ xam nga ku si nekk tamit ñun ñëpp li mooy suñu objectif yëngu si yëngu-yëngu xar yi nekk xam nga ci la nekk xam nga na dante metti na sax mais suñu amour la quoi. waaw waaw amour da am. dundu xar metti na ren ak fi jamono ji xam nga def tamit oyofal yenn yi yenn yi tamit man manu cee ñàkk quoi ndax xont bi moom metti ndax xarit fi mu toll nii seeraay bi yëpp du si ñun bu bu affaire wàññeeku woon rek daanaka lépp mën naa jàpp ni ba yomb quoi. prix daaw ak prix ren duñu doon benn. non mënul nekk benn ndax ndax ndax affaire yi ñoo yokku xam nga ngooñ mi ngi doon jar ay 3000 mais léegi mi ngi ci junni ba 6000 ah. aliment bi mi ngi doon jar ay 250 léegi mi ngi ci ay 300 cent 450. kon lépp dafa yokk kon xar yi moom ren ah am nañ yàqin ne moom mënta yomb quoi. waaw mu ngi noonu ah, ba tax na yow it ah, sama baay faal bi foog ñu jox la ci parole rek ndax boobu ba léegi yaa ngi jël gaay ah, ñu bàyyi ko rek mu sànni ci ay kàddoom ñu ngi lay nuyu sëñ bi. waaw ñu fay bu baax. tur bi man Pape Mamadou la. Pape Mamadou dama fi fréquenté rek quoi aussi dama fi amaale xar quoi. waa dama jëla ci. yaa ngi ci xaru ñaata 500 bi non loolu bëri na de rawoon ngeen mu lu bëri man xaru 120 laa am rek 120 waaw ah xew ma ko moom ah xew ma ko waaw sant dooli sant rek waaw ah, amin waaw amin eh, dëgg la dëgg hmm, moom dëgg waaw ñu war a moom pour ñu tabaskee rek waaw amin waaw ñu bokk lépp soxna soxna teel na léegi damay bàyyi ba si kanam waaw bàyyi may jënd ba non lii du dara bàyyi ma jëndal baabi ak mère bi ba si kanam rek. <laughs> hélas. defoon nañ ko daaw fekk déwén dañuy baaxantal de ah ñu bàyyi la rek nga nuyoog euh, waa Kifne TV defe naa ràññee nañ la ci seen bi euh, ñu bàyyi la nga nuyoog ñoom kii di hélas ñëwoon nañ fi daaw ñëwaat fi ren macha allah yàlla nañ fi ñëw ay ati at euh, ba gerte gi yokk ba fi mu ko bëgg mu àgg fa hélas ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi fay xam leen jaajëfal xam nga di aussi suñu chaîne bi xam ñaan yàlla aussi xam nga mu jëm si kanam quoi comme ni nga ko waxee rek defoon nañ ko daaw xam nga defaat ko ren xam nga yàlla nañu yàlla may ñu koy def ay déwén déwén. waaw hélas ah, ñu ñëwaat rek ci gerte gi fekkaat fi yoo xam ne sax ah, booy xool daaw fekkuñu fi woon ñu toll nii macha allah yokku ba yëg ko hélas ah, ñuy laaj rek ren noo leen gisee dëkk bi ni mu dëgëree ak jaayu xar bi. waaw comme ni nga ko waxee soxna Asou xam nga dëkk bi moom dëgër na dëgër goo xamante ne xam nga mais sant yàlla daal. Mhm. waaw sant yàlla parce que xar yi cher nañ xam dund xar yi tamit métti na xam nga mais ñu ngi sant daal ñu ngi sant waaw. ba tax na ñu ngi ne sax euh, fii ñu ngi fi gis ay xar yu mag bi gën a mag a mag maanaam bi ci gën a cher nee na mu ngi ci ba 500000 euh, am waa ji ñu daje léegi ñu koy wax Baye mbay nee na am na ñoo xam ne war nañ fee mën a am xar euh, lu tax ngeen doxe noonu ndax dañu gis kii yu bëri dañ naan ñu bëri dañ duñ fi jaar ndax xar yi dafay cher. wa xam nga comme tey ni nga koy wax parce li nga yor. comprendre moo tax tey ñun suñuy xar dina basé wuñu si yenn prix rek am na cinq cent mille xam nga ba ba cent mille franc waaw parce que ku nekk li nga yor xam nga moom ngay moom ngay duggee marché ba client yi tamit xam nga bokkuñu quoi mais ku fi ñëw moom di nga am xar moom wax dëgg yàlla. macha allah waaw. mu ngi noonu nee na ku fi ñëw dina am xar ba tax na Elas ñu gis ko daaw ba muy yëngu ci li nga xam ne moo di xar Elas lii ngay yëngu nii euh, dañ nga ciy yëngu tout le temps sa liggéey la wala am na leneen loo ko booleel. waaw xar yi moom wax dëgg yàlla sama liggéey la waaw parce que man moom bu dee wax dëgg rek xar moom ma teral si àdduna waaw mais am na leneen lu ma ko booleel mais xar yi moom mooy priorité parce que leneen li ma ko booleel noonu xar tey ñoo ma ko moom ñoo ma ko may ma ma di ko def parce que damay liggéey si transport xam nga tey xar yi ñoo ma may ma jënd oto xam nga di si transporté waaw kon lii sama liggéey la et puis lu ma bëgg la quoi waaw lu ma bëgg la moo tax yàlla xamoon chaque jour dañu ciy defaral ndam parce que nit moom na nga bëgg li ngay def rek après li ci des day ñëw. macha allah ah, dégg nga El Hadj ah, nee na lii muy def nii amuram la waaye El dañ lay laaj bu dul tabaski rek ngeen di jaay xar wala. non man moom bu dul tabaski rek man yëpp laay jaay xar tout moment la may jaay xar mais nag si ak élevage laadum yi fi nga baas yi nga gis ne la xam moom laay ëpp li may utiliser quoi moom laay def parce que man damay dem ay foire exposé xam nga man loolu laay dund quoi maanaam élevage moom. tout le temps damay am ay xar. waaw muy xar mu góor wala muy xar mu jigéen. kon ñi nga xam ne ñooy ñuy seetaan kii di El mu doon daw doon ndaw lu engagé waaye doon ndaw lu am jom ndax daaw bare ñu ngi koy fekk muy yëngu ci wàllu xar waaye di ci toog ak ñi nga xam ne ay naataangoom la ñoom tamit ñu ci yëngu grâce ak El Hadj parce que euh, moom nee na lii amuuram la te bu ci amul woon amuur yemale ko ci boppam defe naa du yaatoo ni ba tax na dañ koy ñaanal li nga xam ne mooy gétt gi mu ciy yëngu yàlla na ko ci yàlla yokk ak leneen ak leneen doon na ndaw lu am jom El Hadj saa su ne nii lañ la fiy fekkee euh, nga doon koo xam ne tamit ku ñu yaatal la ndax saay buñ la woowee rek danga naan accès leen euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax di wax sama kamaramaan ba tey jeexul ah. man nga jëlal li nga xamne modi tableau hélas bi ndax day yëngu ci walu nee euh, xaru laadu mi xaru laadu mi ak euh, ñi nga xamne ñoy dem ci compétition yi. waaw waaw si kii foire yi di exposé. toy don na lu am solo ah. waaw mais kontaan ci yeen tamit xam nga parce que tamit bu leen neexon tamit ngeen baña def sen déplacement xam nga fi joxu ñu leen fi dara mais chaque jour aussi yeen ngi ñëw dañuy dimbali xam nga li ngeen def nii lu bax la su ñun parce que da ngeen ñu lancer aduna presque ñëpp xam ñu quoi. waaw di jaajëfal tamit sama booy yi wax dëgg yàlla ah. waaw wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi jàpp sa affaire parce que man sa ngoon damay dem ñibbi sama gaale ñoom laa fi bàyyi ñuy toog financier xam nga man amu seen fay tamit xam nga tey ku ko ku mu neexoon ni amuñu fi ñeneen amuñu fi xar mais bu ñu neexoon dem toog mais dañuy bàyyi seen ité yëpp ñëw jàpp si affaire yi xam nga man amu amu seen fay daal dama leen baax yàlla xam nga yàlla fay leen waaw bu ku ne moom li nga bëgg si àdduna yàlla defaral woon sank rek may dox ba fekkat benen daral ci bir koñ ya wax rek neena du euh, ñi ñe ci ciogal rek ñoy jaay xar ñi ci bir koñ ci lañ bokku ba taxna dama ñëwaat fekkat fi yenen ndaw euh, alaykum señ bi ma ngi lay nuyu. alaykum salaam soxna ñu lay ziar bu baax. am ñu ngi sante yalla bu baax baax. Euh, aha wa leen gi. de ñu ngi fi mom. metti rek mais nak ñu ngi sante yalla bu baax baax baax mhm. waaw. no leen gisee njaayu xar bi ren. wa njaay mom metti na mom ndax li ka metti moy dund bi dafa seer. Mhm. waaw dund bi moom dafa seer trop trop trop paas dafa seer ngooñ dafa seer mais nag ñu ngi sant yàlla xam nga dafa xas nekk suñu tereet moom mais nag liggéey bi moom boo ko xamul rek da ngay découragé bàyyi mais metti na lool moom moom moom. Ah, clients yi ñu ngi ñëw wala. waa client ñu ngi ñëw ndànk-ndànk mais xam nga instant yi weer bi day doog a mais ñu ngi leen di xaar. prix yi euh, maanaam euh, comme ni nit ñi di wax euh, ñi ne ci koñ yi baadoole yi duñ fi dugg est-ce que loolu am na. non loolu moom amul fii moom si mbaar fi mom wax deug yalla mom lu way am di nga am xar inshallah rabbi bi sobe yalla dañuy deg ñu ne ñi nga xamne ñoy jaay xaru yar ko xamne ni dooleem jottul ci ginnam du fa mën a non lool ay wax la rek lool mom ay wax la c'est-à-dire que manam it do ma aadama ku nekk da ngay xol li nga xamne fa la sa poste toll rek nga jënd ko rek fi mom bo ñewé xaru 500000 200 250 100 180 lepp amna fi dal lu fi way am dal bu sobe yalla bo ñewé dañ la jappalé nga am xar ci lu gaaw sobe yalla est ce que li nga am ci dara li am na fii maanaam boo xar ba pare di nga gis euh, ku ko yobul manam bu ret wala am wala ki nga xam ay wala jaaykatu guum gumi est ce que am fi non fii amu fi mais li fi ëpp ni da fi jënd xar bàyyi fi na amna ño xamne seen kër yi dafa amul sécurité mhm. amna ci xar yu bari yo xamanteni ñu ngi ci gétt gi mhm. euh, jar na seen borom dañ ka fi bàyyi kon amna ñu ñew wa amna ñu ñew mom amna ñu ñew sant yàlla li ëpp moy ñew wala waaw li ëpp moo ñëw waaye nag it euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi xaaraat daal waa ñu ngi xaaraat client yi bu baax a baax a baax yéen toog fii ñëpp ci xar ngeen di yëngu wala dafa am beneen liggéey boole leen ko boole non gars yëpp ci xar la yëngu mais ku nekk nag yaa ngi sa métier ay chauffeur a fi ay tailleur a ngi fi ñëpp a ngi fi mais nag wàllum élevage moom dafa nekk suñu deret moom waaw waa amul la ñu ngi ci xar yi ñu ngi ci ginaar yi ñu ngi ci nag yi ñu ngi ci lépp bàyyiwuñ dara daal lépp loo xam ne élevage rek ñu ngi si est-ce que xaru yar tabaski ba tabaski rek lay jar. non non xaru yar du tabaski ba tabaski rek ndax des nit day am ngénte wala koo xamante ni day am fête dalay lay woo ne la xar temps laa bëgg nga dem yóbbul ko mais li si ëpp nag moom franchement tabaski màggal gàmm yooyu moom la ëpp lu muy jar moom waaw. macha allah mu doonoon ñu fi fekk ah, sama caméraman euh, dañuy tëj rek tàggatoo ñi nga xam ne ñooy ñi ñuy seetaan euh, nii nii la nii lay demee saa su ah, tabaski ak xar tabaski ak xari nag tey li lañ leen indiloon ñëw fii ci Tëngéej Colobane Guy Murit Cité Sococim ah, ñëw nag fekk fi ay ndaw yu engagé ay ndaw yoo xam ne nii liggéey rek moo leen ñor ah, ba tax na ñi nga xam ne ñoo jëndagul xar nañ dugg si si nga xam ne ñoo ne ci gétt gi ndax nee nañ xar bi xar yi ñuy jaay képp koo xam ne rek nu sa doole yem rek boo ñëwee di nga fi fekk sa xar ba tax na ñu ngi wax ñëpp nañ dégg nañ dugg si ñëw jënd waaye di jaajëfal sama gaayee ñoom El Hadj ah, macha allah baay Mbaye du ah, duma leen fàtte parce que at bu ne nii lay demee maak ñoom di wax ah, mbokk yi ñu seetaan rek dañuy ñëwaat ak yeneen ndax lépp ci biir tabaski bi la nañ dugg ci marché bi dinañ dem ci ñi nga xam ne ñooy tailleur yi ah, di wax rek dig daje maa leen ko jox ci biir semaine bi incha allah balaa ñoo tabaski yeneen ak feneen incha allahu rabbi asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.